kërikër Banjul salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars waxoon naa leen ko man gém bi bugguma di ci wax dama ne la képp kuy rab Sénégal Ngaaka Blindé mooy sa papa Ngaaka leen dàq rab da ci daan judd di ci foo màgget di ci foo moom rab comme ruy ci moom da leen a rab rap ñu siis ñoom ñu ngi naan day mbalax rëbul day nanga papi arrête kii du sa moroom on liri kër waali dégg maa euh, waali Ngaaka Blindé la mën fuuf Ngaaka Blindé moolal Dakar rab du moroomu kenn golo moom du la tontu golo moom du ma sa gën di la tontu boo waxee golo maan waaw dépassé naa niveau niveau rab niveau rab la ñuy wax Ngaaka Blindé jamono jii ku ko Dakar rab dàq koo classe amul du tooñ nag mais ku dugg ci moom di nga ko gis nga ni mu def ahlu birik ñëw def ko ñii papi arrête mënuñoo yem yaxet du moroomu kenn kenn du moom Ngaaka yaa mën ñëpp yaay seen bàyyi